أعوذ بالله من الشيطان الرجيم waaw foofu sunu borom mu ngi lay indil xaram moom ñu bi xoolal déglul fii li ma lay wax foofu mu ne jàmm bi nga xam ni maa la bind ah bi naas naasi gi mu ne mi ngi lay indil pour nga muus si seytaane ak bat بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم googu mu ngi lay xamal ne la sunu borom lépp loo ko ñaan ko may la ko إنا أعطيناك الكوثر waaw mu ni ku sàkku si moom nga am aji kaw sar فصل لربك وانحر waaw baaxal fasalni rabbika wanhar waaw mu ne mooy borom yërmande kaw kaw kaw kaw ga te moom moo ko moom te kenn du xam fa mu dëkk inna shaani'aka huwal abtar mu ne mooy def si ruuxu nit ak yaxam ak léppam ci boppam ba kenn ku mu neex dara du ko dal ak bismillahi rahmani rahim googu nee na la moom moom asamaan ak suuf sa kaw kuy commencé lépp raxam raxam ñu raxam boobu ñu commencé ak إن الذين اصطفينا من عبادنا mu ne dénku ma leen dara budul jàngu yàlla wa minhum zalimun li nafsi فمنهم ظالم لنفسه هم وهم إني سفر جهنم oo oh, zalika boobu nag moo indi yërmande yàlla pour mu yërëm jaam ñi mën leen leen yaa ayyuhal kaafiruun waaw kaafiruun aji kaafiruun kooku da nga dégg Firawna waxoon nga yaal kaafiruun la abudu maa ta'buduun wala antum a'lamu ammaa abudu mu ni aji yéefar yëpp dinaa leen dajale dugal leen safara jaxanam mais yàlla du dugal kenn safara ak la. laa abudu ma taabudu laa axbadu laa tax bi duwoon mu ne de man maay tëmbal di tëmbal di tëmbal ku ma neex tëmbal ko ku ma neexul du tëmbal waaye am na ñu ma dul tëmbal ci kaw صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين ولي أجنك ñinga xam ne dañoo gëm te xam ne man may maay góor bu nga xam ne maa fi nekkal ñëpp غير المغضوب عليهم ولا الضالين wala daal li ndogu mu indi amiin te amin googu moo baax nan wala daal lii nga indi amin te sunu borom dafa jël amin googu def ko si ruu doomu adama mu am xolu pastéef ba war kaa mën a gëm moo waral ñaanal loo ñaan nga amin jugal fii man du ma sama xam dëgg la kuy jàng fii ak koy lu weedi karaŋ-karaŋi loo ñaan si jàkka amiin ngay wax amiin boobu moo indi amiin si au nom de Jésus Christ dégg ngeen ma. seen amiin gii ngeen di dund nii na ngeen ko réglé de amiin gii la yàlla nangu nangu ko nangu ko nangu ko nangu ko kon réglé leen ku bon sa bopp ku baax sa bopp xoolal bi deux trois. 4, 5, 6. Hein? Moi, 6. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen googu mooy amin mooy ñii dégg nga ma. maa ngi dégg bu baax. dégg nga ma déggoo. maa ngi dégg. léegi lan moo tax nga ñu palaane. léegi xam ngeen kuy tëdd nii di naan sàngara. ngeen ñëw yaakaar ko dof la. ngeen ah réglé leen. fekk ne fekk nekk sa nekk si nekk seen bopp. l'esprit est toujours trompeur. sëñ bi maa